ñooñu ko ñooñu. ah ñooñu. waaw Amadou Badji Sall. kon toogal ci yéen. waaw pour nga def. dégg nga bàyyi. bàyyi ko. ah. Mata, mata, mu ne kii bi nekk soxal moo nekk ci moom xaaral ma changé balaa nga koy yore yu tax bàyyi bàyyi bàyyi. jël ko jël ko mu ngi def ma changé balaa nga koy yore yu tax. loolu fan lañ koy yóbbu seen place. Thank you. 지금 있습니다. léegi gaañ bi eh dugal foofu dugal ko da lay gaañ Kutu saya, boya saya, wunin da Allah, siginin da Allah, wunin da Allah, siginin da Allah, hulu Allah, samad, alfa yi gani, harfa yi batin. Thank you. saya Mulaya saya Wurin da Allah siginin da Allah Wurin da Allah siginin da Allah Kulu Allah samar Alfahimken Alfahimbacin Alfahimken Alfahimbacin Kujirna Sirina Uji Kwallo Kwallo kiti saya baya saya da Allah sakinan da Allah kullu Allah samadu alfayi jeri alfayi batino alfayi jeri alfayi batino kurjinna sojinna sotinga uldi kuruyanna nabiyanna nabi dure durete sojina so sojina kisi kasa koye kaasi samsi semorusi samsi semorusi samsi semorusi samsi semorusi samsi semorusi samsi semorusi jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem jéem saam si sama luus yi saam si sama luus yi saam si sama luus yi saam si sama luus yi kiri saaya boleya saaya wóolante Allah sëginante Allah wóolante Allah sëginante Allah Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow ceeb mu mën a ne jinne yi sama jinne yi téye nañ ko mu téye karawam bi di ko piti saaya boloya saaya wonante allah saginante allah wonante allah saginante allah hulu allah hamdu hulu allah saginante hulu allah saginante alfa algey alfa algey alpha yu jën alpha yu baati alpha yu jën alpha yu baati alpha yu jën alpha yu baati kuntinna kuntinna kunti kuntinna nabi lule lule te sojinna so sojinna kinsi gaasa fay gaasa samsin sami musi samsin sami musi samsin sami musi samsin Ferrucci, Ferrucci, Ferrucci, Ferrucci, Ferrucci, Ferrucci. Ferrucci, Ferrucci. suñu réew

soojina ceerno mune sow haɓɓe ɓe jinna nangeɓe atake avancé attrape attrape jaxase jinna Gina, Gina, Gina, Gina, Gina, Gina. suuf Thierno mu ne suuf Thierno mu ne suuf Thierno mu ne suuf Thierno mu ne suuf. kiti saa bala yaa saa yaa. wulante Allah sëgginante Allah wulante Allah sëgg xoolal dama yaa ne dama yaa ne boo koy tere jëlal dama yaa ne dama yaa ne kii tuub la dama yaa ne bañ a ah. sama tànk. 有有没有？

Like do them thing. It is uh, uh, what I ask Moyen na jébalu moyen na jébalu. Tey so. nga demee ak nu mu compter sama tànk. Oh! xoolal defeyaan bi kii la bañ waaw day bañ kii tuub xoolal defeyaan bi gis nga adduna bi dafa am ay defeyaan jinne yi sax defeyaan tuub mu ne bu mu tuub dinoo ko doon tuub de gis nga kii moom tuub na waaye defeyaan bi gis nga defal la balaa moom. bi allah Ceerno Moule Sow Ceerno Moule Sow dama leer Sow dama leer Sow dama leer kiti saya pula ya saya dem na dem na dem na ah. dem na waaw waaw dem na dem na waaw Seydina Semadou. moom la kan yow la kan. yow la kan. man. waaw. man la Fatou Bata. Fatou Bata yow lan la. ah yow lan la. lii fi mu fan la tuubee. fii fan la. ci barab bi. barab ban. barab ban. barab bi. barab bu kan. barab bu sëñ bi. sëñ ban. sëñ Thierno Moulé yow la kan man la. yow la kan. même tàggale. yow la kan. man la. yow la kan. man la. yow la kan. moom la moom la moom la. moom la kan comment tu t'appelles. ah xaw ma. loo tudd. xaw ma. yow lan nga. yow lan nga. man nit la. yow. nit la. nit nga. waaw. ñaata nga am. da ngay fen doo nit. waaw. waaw. ah nit laa nit laa. noo tudd. yow noo tudd. Thierno Moule Sow xalif général kullu jinne. ah ah ah. yow noo tudd. ah Jean. Jean. ah. góor nga wala jigéen. ah góor laa. Ah. waaw. jigéen ñi tudd Jean yëpp dañuy tàng. waaw. Ah. yow Jean nga tudd. waaw. yow lan nga. yow lan la. nit laa. Ah. waaw. Jean nga tudd. waaw. koo jógee. waaw. foo jógee waaw. foo jógee. si ah, ndox. ci ndox. waaw. Ah. looy def suma kër. waaw. Ah. hee looy def suma kër. waaw laaj ko. waaw looy def suma kër. looy def suma kër. waaw. waaw. dama ko bu mu ñëw. ah. dama ko bu mu ñëw mu ne lay ñëw. waaw léegi nag. bu mu ñëw. dina bu mu ñëw. yow yaa ko bu mu ñëw. ma ne ko bu mu ñëw. waaw. dama ko yóbbu ba mu gudd. waaw ndaw laa ko. waaw mu dogal fa mu ne day ñëw. waaw. mu ne day ñëw. waaw yorul xaalis xaalis bu ñu wax ma yàqu ko. waaw ci famille am. waaw eh! yow lan nga. ah nit la. Eh! lan nga. nit la. si c'est faux. nit la xool ma nit la. ma ne yow lan nga. nit la. lu tax nga topp kii ndaw si. ah. lu tax nga topp ko. laaj ko seen famille. non non du ma ko laaj. Eh! yow laa koy laaj. laaj ko seen famille. ma ne ta gueule réponds-moi. laaj ko seen famille. ta gueule nit la. lu tax nga topp ko. nit laa laaj ko seen famille. déedéet du ma ko laaj seen famille. Ah, ah. danga may wax tey lu tax nga topp ko wala ma defal la ba. Eh, lu tax nga topp ko. laaj ko. wallaay la famille am. xaw ma famille am yow laa xam. laaj ko. Eh! man saa. yow góor góor na wala jigéen la. jigéen 100 pour 100. xoolal nag man jigéen laa wala góor eh bëri nga wax merde. Eh, eh, merde. Eh, man merde. merde. eh merde laa wax. bàyyi ko laaj ko famille. non yow laay laaj. wax ma lan ngay def fii. dañ ko yebal. kan lañ yebal. famille am. noo yebal kan. ñoo ma yebal man sax. pour lan lu tax ñu ci moom. ma yàq ko dafa am xam-xam. dafa xam-xam. dafa beneen jinne bu ko ban jinne moo ko topp. nañ ko fam yaam. Ah! jinne nga. waaw. jinne jinne bu goro wala bu góor. bu góor. Ah! Jean dégg ngeen. xam nga ma ti ma ko ne. non. liggéeyu ma la. nga ne. liggéeyu ma la. waaw ne. laaj ko laaj ko seen fan. Eh, mer. ti eh. ma ko ne. non non. laaj ko nga wax ma dëgg c'est moi la xalif général ku lu jinne. noo tudd. Thierno Moule Sow. noo tudd. Thierno Moule Sow. ah. ti ma ko ne. waaw. foo ma xamee. yaa ngi téye sama sama rakk yi. sa yan rakk laa téye. téye ma ko. Eh. sa ban rakk. bàyyi nga leen fii. sa yan rakk laa téye. bàyyi xale bi mu ñibbi du ma génn. ma ne sa ban rakk laa. du ma génn. force nga génn wala ma duma la. sa ban rakk laa fi téye sa. waxal ak seen famille. ma ne ñoo ma indi. du ma wax ak seen famille. seen maa ko bëgg a. ma ne. seen rakk laa fi téye. ñu ngi fii. ñan la waxal ñu bëri. waxal seen tur yi. waxal waxuma seen tur. sa rakk ay jinne laa fi téye. say rakk jinne. waaw. say rakk jinne. waaw man si ndox laa dëkk. yow soo ko dëkk. say rakk jinne laa fi téye. waaw bàyyi leen. du ma leen bàyyi bàyyi leen. hey du ma leen bàyyi. hey hey hey. duma kenn. ki di saaya. wala di ànd ak sama doom. fay baatina kurti. boro yan na nabi yan na. dure dure tey. soojini ah. so soojini baasa ah. koy kaasi ah. saamsi semoni saamsi semoni haɓɓere jina nangeeoji monokoji tolotoji talateji monokoji tolotoji talateji monogami koloti talati annabi monogami koloti talati dañ koy bàyyi wala doo ko bàyyi. lan nga famiyam. Ah! famiyam lu tax ñu jox la ko. dañu ah! soxor. dañoo soxor. Ah! kaay famiyam dañoo soxor. maa tax yaa ngi topp xale bu jigéen. yàgg naa.

Kitisa. Bolo jinna attaqué attaqué jinna attaqué attaqué approché approché approché approché approché avancé avancé chéri chéri voilà voilà missionaire. missionaire. attaque. applaudisse. applaudisse. Ao Fábio Fernandes! Amanhã! faye yara e papam waaw <coughs> noora e papam ay gom ci biir laa ko de ay ay ci biir waaw la ilaha illallah ay bokkam famiyom fami jabe ku de ñu eh. ne Casamance Casamance waaw dina ko garaaw nga waaw ñaata am nga ñaanal nga am. téeméer am. noo tudd. Ah, Jean. Jean la tudd. Jean nee na am na téeméer am. lii dama baax pour waa ji bind affaire bi. téeméer yi am. léegi nag da nga ñëw pour tuub nekk sama taalibe wala. non non non non. Ah? dama gën ci moom. foofu su ma gën ci moom. Ah. dama gën ci moom. dama fay papa. dama fay. jaaree Fapal. waaw Fapal nga ne ko fay. Fapal taal ba bay ñaas. Fapal taal ba bay ñaas. waaw. léegi bu jëlee maa ko rey. Fapal ñoo ma ko fayal. waaw. nee na papaam taal ba bay ñaas la. xale bi ci jinne la daal di lekk. am xam-xam. xale bi. ci jinne la lekk alal jinne la. xale bi. waaw moom xam-xam. léegi nag moo tax ñu bëgg a rey xale bi. waaw. lu mu gis day wax ci famille bi. siginin da hulu allah samadu alfayu jai alfayu bati kurjinna sojinna udi koroyanna nabiyanna nabinure durete sojinna so sojinna kisi kasa kwe kasi haɓɓe mo jinne nangue mo haɓɓe mo nangue mo yewlen ko takkalen ko jinne yewlen ko bamu dëgër nguen takka ko yewlen ko bamu koddu koddare haɓɓule haɓɓe mo yewlen ko yewlen ko yewlen ko yewalen makko yewalen makko jinne yewalen makko yewalen makko bamu koddu koddare yewalen makko bamu koddu koddare so so yewlen so haɓɓe mo renforcer diina xàppee ma yeew leen ko renforcer xàppee ma yeew leen ko ba mu kodd koo daanal ba mu kodd koo daanal nañ ko duma mu tuub jébalu na tuub jébalu na tuub jébalu diina xoj diina xoj leen ko xoj xoj leen ko diina xoj xoj xoj xoj xoj xoj bu baax dix mille milliards diina xoj xoj leen xoj leen baat xoj xoj ba mu leen na ko ba mu yuubu. xool xool xool xool leen ko xool xool xool xool xool xool xool leen ko xool xool ci biir xool xool xool xool xool xool xool xool baat bi xool xool bu baax a baax xool xool jëlee loxo yi ngeen xool xool xool baat bi xool xool xool jëlee ngeen xool xool xool xool leen ko ba mu yuubu jëlee loxo yi ngeen xool xool xool jëlee loxo jëlee loxo yi ngeen xool jëlee. loxo mi ngeen di jël ngeen xojee ko ko xoj. dina oh. xoj xoj xoj xoj dina dix mille millions dina xoj xoj xoj xoj nañ ko xoj xoj xoj dina xoj xoj xoj xoj xoj xoj nañ ko Mariama Kamara dina xoj xoj Mariama Kamara dina Mariama Kamara dina Saliou Moulé xoj xoj xoj Saliou Moulé leen ko moom loxo xojee ko bu baax a baax wan leen ko soxor baaxul moom moo rey papay xale bi dañ ko fayee papay xale bi. dina xoj wan leen ko soxor wax seen yaay. waaw yaay mu ne dem leen jur ah, ma lee. maga bu góor. ana maga bu góor. rakam ah. moom mbir door. daf ko def la tout. te yàq mu def la tout ba mu voyagé. dem naa. rakam dafa voyagé. dem naa yóbbu na ko amara. def la tout ba xam ne dafa am xam-xam. fan yoon sa dañ ko ragal. daf na lu nekk pour rey ko. pour rey xale bu jigéen ñu ko. la jël papaam papaam dee mu dee daa mat làmmiñ bi ah! yow yaa def loolu famille ñoo la ko fay waaw waaw soor vendredi la gaañu àdduna vendredi la gaañu àdduna yow yaa ko rey cinq ans yow cent yaa ko rey eh, kon yow mën nga rey nit waa di la famille fu ne mu ngi xool seen famille. Euh, papaam xale bi rek bëggoon mënuñu ko sant moom. si la si laa jël papaam. moom xamul papaam papaam ak feebu feebaram ak si la xamee papaam. papa ma la ko ànd ak lay wax. ah dina la def ko. foofu laa ko reyaat. Ah! Jean. Eh! Jean. Eh! Jean. Eh! Jean. Jean. Jean. Jean. Jean. Jean. Yes, Jean. Eyo man jàppoon naa ji ne bu naa bi. Jean. Jean. yow lan mooy sa melokaan Jean ban melokaan nga yor. lépp laa koy ñëwee. ban ak ban ban melokaan nga yor. lépp laay ñëwee. lépp ngay ñëwee lan ak lan. gaynde. gaynde. jaam. jaam. lépp lay ñëwee. lan ak ak lan gaynde jën jaam. yéen a ngi ah? ak lan. Jalaw. Jalaw kon nag ndeysaan Jean yow da ngay tuub jébalu nekkal man di ma liggéeyal. Seydina Ousmane dafa may la gagné sa xarit lay doon. xëy na kooku day bind ay xaatim bind la xale bi xaatim. Seydina Seydina Ousmane sa xarit lay doon. waaw. tuubal rek suma taal bu mu ñaawal. non non du la ñaawal. bu mu ñaawal. moo lay ñaawal. yaa ngi koy gis. bu mu ñaawal. kan Seydina Oumar. waaw. déedéet du la ñaawal. waaw bu mu ñaawal. ki bi si yoon bi. du la ah. ki bi si yoon bi. wala kon ñibbi mu ne mu ne moom dina dem. waaw. waaw. waaye léegi tuubal nga nekk suma taalibe su ko defee yow ku naa fekk nekk ak defe yaa ma yónni la. <gasps> ku naa fekk ak defe yaa nekk ma yónni la. bu ñu nar a sonnalee sama taalibe ma yónni la. waaw kon léegi saa nangu la tuub. waaw fu ma la yónni nga dem. damay dem. fu ma la yabal nga dem. eh dama saa damay dem. boo demee nooy def. loo laay def. waxal loola sànq laay def wane wane ma nan ngay def boo demee. loola sànq laay def. ma ne ko xëy yow li demal muy Thierno Moulé Thierno Moulé Sow dugal. tàccu leen waay. soo leen seetaan rek. Jean Jean Jean Jean Jean waaw am nañ taalibe ndeysaan Jean la. gis ko xaaxam la. sama noonu laa la yabal dem dugal ma leen dugal ñu nekk dundee leen dundee rek. bare leen. sama yi. kon bare leen. sama noonu laa la eh. yabal nga dullil ma leen duma leen duma yi métti. defe naa yi. kër gi yi naa fekk bu fi nekk ak defe naa nga génne ko duma yi métti. waaw ah. nga ne kan moo la yebal ci pa ci kan moo la jox papay xale bi sarax pour nga pour nga pour nga jàpp xale bi. seen famille. papay bi lañ la jox nga lekk ko yaa ko rey. Oh, maa ko dañ koo suul te deewul. nee na papa yi xale dañ koo suul te moo ko fàtt. waaw ne ko Patricia trop tu tubaab lañ ko turandooree. waaw. Ah. Piti Saaya. waaw. Ah. non baal ma yëngal nii Saaya yow léegi sama taalibe la. Kedisaya. Bana ya saya. Ah! Wannan da Allah. Wannan Jandanan la. Ponkal la danan la. Jandanan la. Zan ponkal la danan. Ba da biyo ko. Tani ko. Jean gars yi nee leen Jean. Jean Jean Jean Jean Jean Jean. Jean Jean Jean Jean Jean Jean Jean da ngay réglé. dama bëgg a naax da ngay réglé. nga ñëw fii bu ma laaxoon. day compliqué mooy kiti saa yaa. tukkal nga dem fee. na ñëw na ñëw. na dem. na ñëw bëgg a daan na ñëw. dina mi ba jàpp dina. saa yaa. tukkal. bolo yaa saa yaa. bu dee ko dem. toogal yaakaar naa ak moom. bala saa. Jean xoolal wàcce sa loxo wàcce ko. Jean kaay xoolal ma kii jinne bi. boo ñu paree nga xoolal ma kii jinne bi Jean xoolal. Jean. Jean. Jean xoolal ma kii jinne bi. xoolal xool ko. moo ne xool ko. yow ñaata bët nga yor. ñu gis. xoolal. dina baa ngi. toogal de. ma ne ma toog. ñu gis. tey Thierno. ci xool ko. dafa ma ko yónni allez. Eh, xool ma wala saa <laughs> xool ma xool na ma eh. Pape Sidi jël ma wala sabati génne ko. xool na ma de ah. soo ko day liggéeyaloo jënd yi. jënd jënd. jënd xool ko. jënd gisul la de. jënd jënd jënd. jënd. tranquille. jënd jënd. nga ne toogal. jënd ah. jënd. Gina, Gina, Gina, Gina. Hey! Revois! Hey! Sors, Isaiah! Zach! Hey! Jean! Non! Non, non, non! Allez! Jean! Hey! Doy na doy na bàyyi ko. Jean xoolal ma kii jinne. am na sens. Jean. kaay. dama koy déglu de. kaay dala sara. am naa jinne buy xaar. Jean. bu fi bousee de. hey xool ko. ma ne kii jinne bi tàppat la xoolal ko. Oh kii Jean kii dina bi laa bëgg a kii dina bi laa kiti saya dina kiti saya saya saya hulun di Allah pusal segini di Allah hulun sama lu ma la tere fii hulun Allah tàccu leen saa waay hulun Allah sama du alpha yi jeex. yàlla saytan. alpha yi ba. ala. jinna sojinna. looy ñàkk kolo yan na. mi tapet na. kolo yan na. xool kiisi kaasa. koy kaasi. saamsi. samaru. ala. e may ma. saamsi. bala saa. samaru sama ruus yi. Samsi. sama ruus yi. déglu. kiti saaya. ay sama nako. wala saaya. wala Allah. seginam da Allah. maa ngi dégg sa. sama ruus. ko gaay. alfa yi jël alfa yi. déglu. uji na sosi na uji. kolorin nabiyan nabiyure. ale. yete sojin na. kolo sojin na. kii kaasa. koy kaasi. saa si xool ma. sama ruus. encore ñaari bët la yow. sama encore. sama ruus. xoolal. kiti saaya. boloya saaya. man la tee. saginande allahu. wonande ëllëg. allahu. ulu allahu. sama ruus. yemal yemal yemal. alfa yi jéy. xool ko xool ko xool Orba. Ai. Orba. Orba. Tranquilo. Tranquilo. Vai ter solo, pô. Orba. Orba. Vai ter solo, pô. Olha só. Que desaya. Ei. Olha essa. Orba, orba. Wouldn't you be singing to Allah? Alpha yu génn Alpha yu baatin Alpha yu génn Alpha yu baatin lulete sojinda sosoda kisikasa kwainga kisikasa Jean kisikasa kwaikasa Jean samsi samoni samsi samoni samsi samoni nangeemu jiima haɓeemo nangeemu haɓeemo nangeemu jiima kiti saayi malasa malasa poloya saayi jean malasa am na najjina boy ha jean dañu ko yabal mu rey papa yi xale bu jigéen waaw rey na ko waaw noo ko reyee jean ma def ay góom si biiram après ko ci hôpital mënuñu ko fay waaw après. mu dee. mu dee. nu mu deewee. da nga koo fàtt xaw ma lan ak lan. da nga ko fàtt. génn àdduna. 5 heures. mu matt lamiñam mu deewee. kan moo mattoon lamiñ waaw. ah. yow yaa mu matt lamiñam. waaw. kan moo waxoon nga ray ko. famille ñoo ko joxe. waaw. ñoo ko sacrifice. waaw. pour nga ray waaw loolu la ñuy ñoom seen famille. bu ko toog ñu seen biir. dañuy joxante ay jinne waaw dañu soxor xale bi mooy ten tere famille léegi nag dañoo bëgg a xale bi tamit wala waaw mënuñu ko kooku alal dina la saa mooy wax def loolu genre ci yàlla jigéen bi de moo fi indi ndox. Eh! Eh! kii daanu moo daanu de moo fi indi ndox eh! fan ñu jàpp jinne bi na. c'est ça. tranquille. allez. kii mel ndox mi kii daanu fii kii. moo indi ndox mi addiya. moo mat ki mu àndal. daanu. léegi nag am naa jinne bu tudd Jean. jinne bi dañ ko yónni woon pour mu dem rey nit. dañ ko rey dañ ko bëgg rey moom. même kii dañ ko bëgg a rey. léegi dama koy recruter mu nekk suma taalibe Jean. ma koy yónni samay noonu mu leen di duma. di leen duma. duma dumay métti. soo dama la war a. soo tuuti. soo jinne bi moo ngi tuub si Jean ne ko bul tuub ndax Jean jinne bu garaaw. voilà soxor bu am doole. toogal toogal gis nga fu ma jaar moom. gis nga fu ma jaar ak moom. gis nga fu ma jaar ak moom. fu ma jaar moom. Jean d'accord nga nekk ak man. na yëngu. Jean. na yëngu. laaj ba fa la jógee. ah boo jógee ah boo jógee. laaj ko. noo tudd yow ah. waaw. lan ngay def fii. du dëgg. eh naa nee na du dëgg lan ngay def fii. lan la lan moo lay dugg. Jean nee na du dëgg. te yéen a ànd ak yéen a ànd ak Jean. nga ne. Jean nee na du dëgg. Eh, man sax du fen. kiti saaya. bolaya saaya. wonande allah. saginande allah. Eh! wonande allah. waaw micro bi na baax. Jean eh! allah. saginande allah. hulu allah. samadu. alfa kurju. sohluɗo o ulde kono Saya, kono ya saya, hulunde Allah. sakinande allah hulɓe allah sama alfaari jeyi alfaari bati ujinna so jinna uldi koroyanna naniyanna hamiɗure ɗurede sojinna so sojinna kisi kasa koye kasi samsi sama ruusi samsi sama ruusi haɓɓe mo jinna Samsi. yow la kan. yow la kan. yow la kan. yow la kan. Kiti moom de moo indi xéwal bi fii yow la kan. Kiti Saaya. Koya Saaya. wonande Allah. sajjilande Allah. wonande Allah. sajjilande Allah. huɗu Allah. sama. alfaari jeeri alfaari baati alfaari jeeri. alfa yu baati sojuru koloyen nabi nabi dure durete sojuru so sojuru misikasa koy kasa sansi samoro cerno muleso cerno muleso cerno muleso cerno muleso cerno muleso Malasa, ubin, wala. man la saa ubbi ubbi eh voilà na ngeen na ngeen na ngeen man la saa ubbi ubbi ubbi open. Yàlla open. open. Madrasa. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Ceerno Moule Sow. Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow Thierno Moule Sow loo bëgg a. loo bëgg naa eh. waaye loo bëgg yow. eh. ñu ne ñàkk fay la nag. loo bëgg a. ah. mooy kii bi. jineen bi jineen bi jineen bi. jineen bi. kii saaya. bolo yaa. wulen bi allah. sajinan bi allah. allah. sababu. alfa yu jëli. alfa yu ma. li nekk ci yaram bi. yaram bi li ci nekk. gënal. loo def fi. eh loo def fi. ah. il fait quoi si. il fait quoi si. il fait quoi si. man saa ma wax ak yow. Advisé. C'est quoi Tu fais quoi Tu fais quoi Euh, euh, tu parles avec ça. Montre-toi. Arrête. Arrête. Arrête. chez toi. Hé Arrête. Pas la tête sans. Tranquille. Sans. Il faut quoi Arrête. Il faut quoi Je vais te casser la gueule. Arrête. Vas-y. Vas-y. Il faut quoi Vas-y. Arrête. Arrête. Arrête. Laisse-moi. Vas-y. Jamais. Jamais. Tu parles avec ça. Tranquille. Sans. Eh, moi c'est ça. Ah Ah Moi je dis jamais. Voilà, bah, lui, mon moi là. Il m'a dit que non. Ah Laisse-moi, je dis. Ah Arrête de crier, tu me fais. Ah Ça sort. Samsi. Ah Ça me Ah Tu m'énerves. Ah Tu m'énerves. Ah Sarah. يا سارة Arrête de crier Dégage Dégage Dégage Dégage César César, ouais Jean, cher Jean. Non Tu me chies Tu me fais le cul Retourne-toi Ah putain tu me Ah Zaya Bonaya Zaya Mwenye Mwenye Mwenye Mwenye Mwenye Alpha et J. Alpha et J. Alpha et J. Alpha et Kourdi. Tu fais quoi Rien. Si. Ah, tu m'as dit ça Comme ça, ça te regarde pas. Si. Ça te regarde pas. Fous-moi la paix. La cola la baba, la la fi. Ay la fi, ay la fi def. Si. La fi def. Dara. Si. Nga def. Dara. Yow la kan. rien du tout. dina wax loolu fii dem de. tey dina wax loolu fii dem. boo bëggoon ko. waxal ma bàyyi la. waxal ma bàyyi la. tu fais chier toi. ah dégage. Thierno Moule ak Guinée mi. Thierno Moule ak Guinée mi. Comment tu t'appelles quoi Moi je suis bien, laisse-moi. Je suis normal. Je suis normal, laisse-moi Jean. Non, non. Non, non, non. Jean, bu ko bàyyi. lan la xamal Jean laa tudd. So. Comment Laisse-moi. Oh, j'ai rien, je suis bien. Je n'ai pas dit. Je suis bien. Laisse-moi, je suis normal. Attends, je vais le demander. Comment commande. eh commande tàkkal. commande commande tàkkal. laaj ko. eh commande tàkkal commande tàkkal. affaire laaj ko wala lu bëgg. yow loo bëgg. ma bàyyi ko wala la. loo bëgg. ma bàyyi la ma toog ci moom. Je suis bien, laisse-moi. Waaw. Yàlla mu leen soow. Naam. Yàlla mu leen soow. Naam. Waaw. loo bëgg. C'est la kan. Ah. Eh, c'est kii. Waaw. Zaa nañ ko sonal tuuti. Ah, ñu ne la. Ah. nekk ci moom na dañ. ñu ne ko gën. nekk ci yaramam bi na Quelqu'un Là, il fallait les avis, regarde Arrête de crier Tu fais chier tout le monde Jean Jean Arrête ah, Tu les as, ouais tàccu leen Jean Jean Jean Jean toogal toogal Jean so tàccu leen ko eh Jean mën na xeex n'est-ce pas bu jàppee lu bàyyi tant que waxuma ko mu bàyyi lu bàyyi Jean sonalal ma kii tuuti kii sonalal ma ko sonal ko jinne bi dafa yambare sonal ko. waaye tàccu leen saa waaye. waaw waaw. waaw dama di dee. dama sonal ko. Kidi saa yaa. Ah! yow nga ne la yaa toppoon xale bu jigéen. Ah! sonal ko Jean. yaa Saara. wonande Allah. Eh! saginande Allah. Eh! kulu Allah. samadu. Allah. Abacem. Baykoyo. ah bu tàggatoo ba génne si biir nañ tàggatoo ba génne. waaw. waaw dana def. waaye de si. Goloya Saaya. Seki. Goloya Saaya. Yonente Allah. Seki nente Allah. Yonente Allah. lan nga war a def. jinne bi de neex na defar moom. waaw jinne bi nee na lan la war a lan lan la mu nee na man lan laa war ko war a wax mu def. waaw nga xam ne ku ma mu yabal jinne bi mu duma la. Jean ku ma bu ma la yabalee noo koy def. noo koy def. dama tàccu leen sa. xanaa man moom balaa ñu doon juboo tàngoor na jër. tàngoor na jër. nga ne xale bu jigéen bii nga dugg nii. papam yaa ko rey sax. waaw. lu tax nga rey papam. famille bi ñoo ma yebal. ñoo la yebal. waaw. pour nga rey xale kii. waaw. noo ko reyee. ah dama ko fat ay góob. ma nekkoon si biiram dem si hôpital bi mënuñu mënuñu ko faj ba ma dee aljuma waaw. Ah. cinq heures. cinq heures aljuma. mu matt làmmiñam ba lan demee buñ ko war a mu matt làmmiñam. heure suul jot. waaw. bàyyiwul. boobu yaa ngi fan. waaw. maa ngi ci moom. ci yaa ngi ci moom. waaw. ñoo ko waaj a suul. ñoo heure suul jot. bàyyi la nga ñu ñu jàngal Quran. mu mat lamiñ bi nii. na muy ko woy Baye Niass. muy bàyyi tuuti tuuti tuuti tuuti. muy taalibe Baye Niass. waaw moom ak yaayam yëpp. ndeysaan. adama soow. wala jéeri. soow. kon saa yi nekk naa ko la. alama bi baax ci man bëri naa taalibe. waaw kii dama ko yebal spécial ngir si sama. waaw dama lay dara su ma génnee jibaam. waaw ma jàppale ko. waaw. balaa muy dellu si jinne si ay jinne lay damay wax ba sonn du nangu nelaw du lekk alal jinne ma génne ci moom maa mun nga ma defal loolu. waaw dinaa ko jàppale. su fa yaatuwul yow la. nga ne. su fa yaatuwul yow la. lu tax nga wax loolu. dama ko yàqal lu bëri. dama ko yàqal yow Jean. waaw léegi man sa taalibe léegi sama. taalibe. taalibe bu bees. nee leen Jean. Jean. mais sans yow da ngaa ñaan nga xool ma sa bët. si biir xool ma. xool ma. xool ma xool ma. xool ma xool ma. wax nga ba pare. ma wax lan. ndax dina voyagé. da nga bëgg ma ñaanal ko mu tukki. waaw bu voyagé yow la. dégg ngeen nee na bu voyagé ci man la wax nga. xam nañ sama capacité. Mm-hmm. xam nañ li ma mën. lay def. kun waaw. li nga wax inna maa amruhu izaa arada shay'an. Ah. kun fayakun. Ah. soo ah. kun. laa jàpp benn jinne. jinne bi buy buy la. jinne bi buy la. ma dañ lay jiital ba ambassade ba. nee na ma ambassade ba. rek. rek. rek. su ma waxee dina tukki rek day dem. Eh, eh, day ñaata temps. ah. dina dem day ñaata temps. Eh. so. waaye nag doo ma man doo ma doo ma doo ma. doo ma sant. doo santaas doo la dama ko sonal. Ah. dama ko sonal boo tax dama bëgg mu am. mu rusloo seen famille. so. yaay dafa sonn dafa sow def ko mu voyager dana taxaalis doo ko regretter. incha allah dinaa ko def pour tukki. su ma gën a gaawee. loo bëgg def la. nga ne. loo bëgg ma def la su demee. loo bëgg. su demee loo bëgg ma def la. loo bëgg nga defal. waaw. non non non non non man dooma santaas. du santaas sama biir xol laa ko tibbee. ah loolu sa waaw. jinne bi ñëw ci so du gis ngeen. Eh! Eh! du gis ngeen. Eh! dinaa fexe ma tukki. waaw. xale bu jigéen bi. waaw tukki. day ñëw xool naan fu. naa ay jinne voyage. dégg naa la ko. waaw waaw ndeysaan. Fab yóbbu ko mu dara. buñ ko bàyyi nag. mais xale bi dafa am xam-xam. même su ma demee xam ko. Mm-hmm. papaam daa liggéey yàlla. musuwaat papaam dafa liggéeyal yàlla. waaw daa liggéey bàyyi la cent pour cent. la ñu. yaayam Adama Sow. ñooñu ñoo bokk ñoo bokk Cheikh Ibrahim Niass musuwaat musuwaat. Eh, dégg naa la ko. ndeysaan. dégg naa la ko sama biir xol laa ko tibbee. Jean nee na dégg na ma xale bu ci. dégg naa la ko. rahmatulah Jembe. dama ndeysaan dénk na ma ko dégg ngeen jinne bi dénk na ma ko moom. bu ko defee du ko métti yow la. ndeysaan jinne yi xam nañ kan moo ci. jërëjëf leen. ah. sopp la jéeri. ndeysaan waaw. mu daal. léegi lan laay def. gis nga. li ma neex ci moom danaa lan laay def. dana naa ngi nii de. lu ma neex ci moom danaa lan laay def. kon kii xam nga ne bu ma ko nee demal ma kër ñoom sumbulu bàcc li. ma lay ko sumbulu bu mu reer déedéet kooku suma taalibe kooku suma taal waaw kon baax na. waaw kooku eh, am. kooku am. dama am. mu reer. dama lay bu ma ko nee demal ma kër Sumbulu bu mu reer tey. ban Sumbulu. Sumbulu bàyyi bu ma la yabalee foofu mu bañ a reer di nga reer. moom lañ koy jaawale saa yu xeesalee. kan kii. moom. ndeysaan. saa su xeesalee dañu koy jaawale. saa Sumbulu. waaw. kon gars yi gis ngeen ndeysaan. day xeesal wet kan. jinne yi xam nañ sumbulu kon. mais Seydina Ousmane bëggul xeesal. moo tax mu ma ne ko xeesal mu bàyyi. Ah. mu bàyyi. ah yow yaa ko bëggoon xeesal loo yow sax. waaw. léegi mu bàyyi. Seydina Ousmane mu jinne bi ko yabal ci man. waaw. Seydina ah. jinne ko yabal ci man. ginneewam ko. kooku mooy papa moo ko adopté. moo ko adopté. ci ginneew a bis bi séddaal la. waaw. kooku jinne bi moo ko. ne ko demal ci Thierno Moule. mu dimbali man bi dafa yor xam-xam. dinañ gens ci yow. su ma génnee di nga gis dafa yor xam-xam. Eh. kon nag xam nga fi mooy géej. man maay defar borom xam-xam yi ne. ah eh. eh. man maay defar borom xam-xam yi. man maay goreel borom xam. ndax lay maye. kon ndeysaan Jean Moulé. Eh! Jean Moulé laa koy woowee. dama koy tuubal ba pare ne ko Jean Moulé. Ah! ceeb bi mu lay sew. su ko bàyyi. Jean Moulé. bu ma bàyyi xale bi. bu ma bàyyi xale bi. yooyu ma bu ne bu ko bàyyi. ndeysaan su ma demee bu ko bàyyi. waa ko bu fa yaasee. dina voyagé. ngemb ko. dinaa ko ngemb. dafa am xam-xam même su ma demee am naa ne ñu bari la ñu am problème. mais man ngemb ko. waaw. voyage bu yow sax demoo sax yow yaay man sama. non non man du ma def fenn bëgg na laa def mais moom la tam. xale dina tukki. waaw. waaw dina naaw avion mu nekk. ngir yàlla. incha allah. doo bëgg a. ndeysaan. waaw. nga ne. waaw. waaw mooy lan. loo bëgg a. lu ma bëgg mooy lan. loo bëgg a ma def. so tax bi leen waaye nee na ko dama bu ci saal ba léegi mu mu kupp gàttal saal ba ñëwaat bu ma ko yemalee léegi mu dem kuur si gàttal sa bopp day métti waaw sonn nga nag waaw bëgg a bàyyi xale bu mu reposé nelawul depuis ay années du nelaw kan moo ko nelaw ban nee na nelawul ay années xam nga jinne bu la jàppee doo nelaw da ngay gis ñii dañ naan bu mu tëdd bu mu. du lelaw bu nangu lekk. lépp yow la. wallaahi man ma ko yónni. mais des fois moom tamit. seen naa Ousmane dafa may sonal. mais garaawul boo ko mën. seen naa ak Thierno Moulay. ndeysaan. seen naa Ousmane xam naa ne taalibe Thierno la. ndax moo yebal fii ñu ko demal ci Thierno. waaw kon mu tubal la Jean. waaw. waxal ashhadu an laa ilaaha illallah. ashhadu an laa ilaaha illallah. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu bés ni ki tey bés bi tey tuub naa tuub naa dugg naa dugg naa ci diine l'islam Jean Moulin ko tuddee naa ko Jean Moulin tàcc leen waay Jean Moulin Jean Moulin Sow Jean Moulin Sow Mouré Sow. Mouré Sow. woo yaayam woo ko woo ko suba. woo ko ak papaam. ah. ndeysaan gis ngeen tuubal naa jinne bi Jean Moulé. Sow. Jean Moulé Sow. comme yaayam. lu tax ma bàyyi lu tax lu tax ma bàyyi. Jean bi da ciy baax. da koy gën a soxorloo. tey tuubal nga ko. mais day gën a soxor ndax xanaa yow da nga gën a soxor Efraïm. Ah, ah, ah. lan ak lan nga mën dëgg dëgg. lan ak lan nga mën dama bëgg a xam lan nga mënee. dëgg sant ba def ko mun naa lépp gis nga. mun nga génne nit dëkk bi. mais eh, tamit saa ngay waxal. non dama bëgg muy wax. mun nga tey tey bu ma la nee kii na génn Sénégal. mun nga ko génne Sénégal. kii kan. non. so. tàcc leen waaye. Balla Thiam moom lay. moom lay soow. waaw. naa muule. waaw. sew ni dafa de bu ma la nee kii nag moom eh, dañu dañu yàq digganteem ak jëkkëram. day dellu. bëgg naa ko. day dellu. sew ko foofu day ngeen. day dellu. day ngeen. parce que yëpp dafa baax. parce que ma nee dama bëgg saa. kii na ko jëkkëram jël si. eggale. wala mu lay day dellu. soobu la su ma nee genre su ma nee genre. xam naa. soobu dama bëgg nga ci xel. la. ma ne day dellu. dama bëgg ngay wax ak man ci xel. day dellu. te bu ma xalaatee dara rek. nga ne nga def def ma nee ma kii. defe naa la. nga duma. day jël wàllam. so mulay ah wala mulay mulay leer tàccu la waxee waaw da ci am solo waaw mu mën a kii genre léegi man Sow laa sant yaayam Sow la sant nee na Sow la sant Sow Sow laa sant Zamule Sow Zamule Sow yaayam Adama Sow Adama Sow bu ñuy football bu ma mu gagné nag équipe bee nag da taxawal. Jean. bu ma bu ñaar ñi di pare nag. trondoor yàlla moo la ko di. yàlla moo la ko jox. nga yàlla moo la ko jox. Jean. ñaari mbëri di pare. waaw ah! suma taalibe la. dugal ci mbër bi nga daaneel ma mbër mee. day gis nga doole bi. Ah, waaw Jean bu ma bëggee am faru kii. c'est ma ne la ñaar ñi dañuy xëccu. ah nga ne Seydou yàlla kay bul eggalee. so. Ah. Eh! Jean kii yorul dara moo ñu liggéey ba dee amul dara ma Jean kii dama bëgg mu nekk millionnaire. ah parce que da ngay jaamu yàlla day am. so. Eh, ah. Jean. Ah. est-ce que lay foofu. Jean Moulay Sow. Jean Moulay Sow est-ce que man Jean. nit bu ma mer loowee moom dinaa mën ko neex. man lay amee. da ngay gis si ah eh, doo ko def dara. mais ñun ñoo lay protéger. ñoo leen di fay Sow. nit eh! bu ma mer loowee man nit. am lu ko neex parce que ñun ñoo lay taxaw te yow doo ko jege. soo ko jege ma si ba. cey. Ah, am nga fi sànq. Mhm. daa pare ba. naa la jàpp na dem. waaw ah, kii la voyagé. ñu nga dem tukki. yaayam da nekk sama doom. ndeysaan. am téeméer at. ndeysaan Jean téeméer at nga am. waaw. yow da naan sangara Jean wala doo naan. man na du naan sangara. ah du ma toog. doo naan. na yéene. waaw. Ah. naan. mais yow jinne bu grand nga. waaw. Ah. waaw. da nekk da nekk jaar. jën. nekk jën tamit. ndox ndox. ah. ah Jean grand nga de. naa Jean waaw waaw waaw. ah. Jean Moulay waaw Jean adduna bi yëpp dañu ma ah. nekk Europe. ñi ah. nekk fu ne ci adduna bi yaakaar Thierno Moulay. Ah. ak yàlla yonente bi. boo toogee fi bu ñu jàppee nit kaso mën na la Jean kee la génn kaso naka lay def. ah guddi. sangu set. waaw. jaaxal suñu borom. waaw yor say kol. ko ba taay ay ngeen Jean bi. kii nag. loolu mooy liggéeyam. maa xam su ma moom mun na bindal boppam xaatim wàcce papa ba alquran yàlla mu ne ku def lu bari nga jaam ba nga jaam ba tey Jean ñaan nga ma de mais sànq lu tax nga ñëw fii di déconné bugguma kii du bëgg a jébbalu bugguma kenn nga naan du jébbalu waxal moo jeexoon ndax lan daa am doole daa am doole waaw mais gis naa fi jël nga ay mbuusu ndox ak jaxase rek kurtu carte yëpp. parce que si ndox laa nekk. ah soo. déedéet ndox laa nekk. moom ci boppam day seet su ndox tere naa ko bu bañ. Ah. mais xam naa ne bu may dem rek na ko def day seet su ndox. kurus alkuraan lu mu gis yaram sa rek ay wax. jàppale ko rek. dinaa ko dimbali. nga sori famille am. waaw. mu sori famille am. waaw. bu baax. parce que xam na famille am ah ci moom moo xam mu sori famille am. mais du ko du ko mën a dara. waaw ah, duñ ko mën a dara mais dañ koy sonal dañ koy sonal. sonal gàllankoor la ah, baaxul. dañ ko dee ko yow la. waaw waaw dina for dina sori famille am waaw Zamulay Sow. Zamulay Sow. Ah. Sow. Eh! bëgg nga nekk ak man. amul problème. lu ma bëgg nga defal ma. amul problème comme yeneen jinne yi. maanaam man damaa bëri ay jinne yi. amul problème nga gaañ ak jinne yi fi nekk yëpp. ñu ngi nii ñu nga nekk benn say. amul benn problème. su ma nee su ma nee attaqué yéen ñëpp ngeen song noonu. su ma nee xoj jinne. ngeen xoj jaxase ngeen jaxase jaxase jinne. su ma nee sama taalibe bi dafa am problème. dem leen lijjanti ci ko. nga def ko comme ni nga ko wax. waaw lu ma leen wax ngeen defal ma lu ma leen tere ngeen bàyyi. waaw parce que alxuraan lu ne. waaw su la toogee. soo ko mënee baal nga baal ko soo ko mënul nga toon ba toon bi yem. nan laa mel ak sëriñ ci Afrique monde entier. ah man daal comme ça mu lay sow ah. gàcce ngaalaam en tout cas dafa mel ni comme classe rek kenn ki dina jël paie kenn ki jël deuxième troisième ba cinquième seen loolu la ñu wutee mais mm-hmm. ni ku nekk yàlla lu mu la dénk mm-hmm. waaw parce que kii di ñëw nii mm-hmm. amul dara dafa kii day yoo xaalis rek ma yàq ko te dafa ñëw ne même aw ma dara damay mu ne da dem ba loolu gëm yàlla mooy def lii saa jox ko dara da ngay am jàmm. kon day am jàmm. Thierno Moule Sow. Sow. li nga wax loolu foofu la. fu ma ko teg. nga dafa raxal lu ngay def. Kanza Moule Sow waxuma benn sëriñ mënul non non fi noo mënul mën am na ku la raw sa bos ci kaw. ma la def nii mus nañ la ko mooy jinne jinne bi ko yabal fii. moo ko adopté te su kooku de su ma génnee xam naa moom ñoo ñooy deewandoon kooku fan la koy meree su bañee julli te maa koy def loolu su bañee julli moom tamit du tëjuloo dañuy xeex xoolal zone lépp day neewi bu mu ñëw si yoon bi sax loolu la def dafa neewi di métti. yaa amul problème yaa ma tuubal mais nag xamewoon nañ am problème mais nag su ma yoon nekkul si yaa ma tuubal man boo ma sant loolu la n'est-ce pas. kon yow famille am dañ la fayoon pour nga rey papa ji rey. rey papa lañ ma fay moo tax ma def leen waaw pour pour ñu mun ma rey mais mënuñu ko. ma nga def nañ ba sonn mais xale bi dafa am xam-xam fu mu munti dem muy xool ay ay rakam ma ranger seen famille même dëj papam dem na ba kaas def foofu scandale rëy seen famille di jooy. mu ne leen seen famille te dinaa leen suul comme ni ñu suulee gën suulee sama papa. est-ce que. ma lay wax nii ah man la mu lay sow. loolu la Jean mu lay sow ndeysaan. Jean mu lay sow. Jean mu lay sow ay wax ji. waaw wàccu leen waay. wàccu leen ko. dem dem koy xandaal mu ànd ak benn jigéen ñu ne ko Awa Diop. mu koy ñaan mu bañ. mu koy ñaan bañ. di ko heure ndogu. c'est heure trois heures du matin. am na maamam dina ko faa déggoo sëriñ bu mag day faj dof. ah non pire saa mooy maamam day faj ay dof ñaan façon bu nekk am na quatre-vingt-quinze ans. faa déggoo. mooy laajte kaddu raay xam nañu ko kaddu lay lekk moo tax ma ne su génne sori ko si famille am. am na dem. dana sa xaalis voyage defal ko ay passeport mu dem. jënk naa la hmm. man la mu ne faaw. dem mu gën a gaawee. ngeen bu ko. Hmm. Hmm. na ko doon sa jokkoo lu ngay def. sa jokkoo. saa su ma lu may def. ko yàlla moo la ko wàccee. soo. Ah! koy def yàlla moo ma ko def. ko wàccee demoo di koy jàngi. waaw. ah donc. donc. soo. donc. kon ndeysaan gis ngeen. tàcc leen. doy na doy na. Jean Moulé day wax. Jean Moulé day wax. may leen Jean Moulé. waaw fi mu sa dina julli. ndeysaan Jean la ko wax dina def. dina gën ci xale bi. waaw hey. Jean la yeey sow. rek man kay def. jarul damay xeex ba dugg bu <laughs> message. ah ku ñëw lii. fekk. duma rek fu ma nee Jean. mos a xel sa dugub. yaa ngi. mos a xel sa dugub. léegi nag am na sarax bu may defal jinne yi nag bi. waaw yow ngeen préparé gis naa ko gis nag bi. gis naa ko loo ci nag bi. ah jënd bi dina tuuru mu fànq lu bëri. waaw am na tamit lu may gis maanaam. waaw boo dugg gis naa ay ay si si si bunt bi. mais du dugg. waaw boppam xale bi dafa am xam-xam mais bu man Zamou Lay Sow xale bi dafa am xam-xam dafa nuyu na a toogul mu saf saw mu ne dee saf dafa dafa saf puub ñu ne ko demoon fee mu ne dafa salte xale bi dafa am xam-xam moo tax ma ne ko jàppale ko. naa ko jàppale. ko. naa ko jàppale. ba mu seet pétaw pétaw alxuraan daf ko xaraam. waaw pétaw waaw. alxuraan daf ko xaraam ba continuer ci ndoxam mun na la xool seet kii la. xale ba xam-xam sori ko si famille am. waaw dina jóge si famille am. dégg naa la ko. waaw macha allah maa ngi waxaat. waaw. loolu ma gis sa buntu bi moo ma ko wan. waaw. gis na ko. waaw. mais lu fi dugg. lu fi dugg fii. waaw. tàccu leen ma tàccu leen. lu dugg lu dugg. yàqal kenn mënu ma yàqal. wallaahi nee naa la mbër mu ànd ak kenn mënu ma yàqal. fii sax di nga fa jógee ah. waaw dinaa fi jógee. waaw xaw ma kañ la di nga di nga di nga fi jógee. fii fu yaatu. ndax da nga koy am facilement. allah. waaw. yaa ngi dégg. waaw. waaw. dégg man man man Jean Moulay maay wax ak yow. Jean Moulay. dégg ngeen li ma leen di wax. man kenn mënul ci man ñaari Mali waaw ñu bëri ñoo ngi fii di buruxloo dañ leen yónni ñu ne ñooy ñëw def ay kuru kara waaye da ngeen sonal seen bopp oh, waaw ngeen sonal seen bopp ah, ah. damaa feese dell ji ne du question fees sax mais luñ ko ne ak yàlla luñ ko dénk ah, ak loo liggéey yàlla ni loo liggéey yàlla so so so loolu lay fay. loolu lay fay yàlla waaw yaa yooyu de. yaa yooyu de mbër mi ànd ak yàlla. nee naa ko daan ko yombul. mbër mi ànd ak yàlla. daan ko yombul. Mm. man Thierno dama ànd ak yàlla. Eh! sëriñ ñi dañuy song ñi may liggéey bu ñu moytul man maa leen di faj. naan ah! naan leen kii di saa yaa. bu la yaa saa yaa. waaw. ma bàyyiwul di liggéey. di nga fi ñëw ma la ma saa yaa. wonante ah! ah, ah! Allah siginante Allah. kulu Allah. yebal ma. doo yebal ma boobu. lan jooy ma. soo. lan la bëgg a. li ngeen la ko. bu dee dafa am ku nga bëgg ñu duma ji ko ñu dem duma. waxal waxal parce que dama la sant dara nga def ko eh. yàlla dama la sant dara nga ne dina voyage bu gën a gaaw amul problème ah am yéene mu ngi di amul dara ah nga defal lii loo bëgg a wax ba loo bëgg ma def loo bëgg a foo bëgg a. Eh! yéen de. xoolal. waaw su ma génnee dina am lu mu la jox a la joxee nga sangoo ko pour aar la xale bi dafa am xam-xam dégg nga. kon nag xale bi du ko ah, nga may ko mu sangu. waaw waaw. du la joxul man maa koy nga jox ko comme ni ma nga ñebe ko. maa koy ñebe ma amul problème amul problème. nit buy ñaan te waxul ci barki Thierno Moule mm. ñaan du nangu waaw jamono ji sëriñ buy ñaan te ñaanoo ci barki Thierno Moule soo ñaan sëriñ mm. buy ñaan te ñaan que c'est le roi des suprêmes maanaam buur sëriñ booy ñaan dañuy bañ bañ nangu sëriñ bu bëgg lu may ñaan mu barkeel ci barki Thierno Moulay Sow sëriñ nag bu ci rëy gombale da ngay fanaanoo ñaan fanaanoo dugg xalwa boo waxul ci barke Thierno Moule dara waaw. yàlla moo ma ko tàggal kenn mënu si dara. suuf waaw. Sénégal nag dañoo soxor dañoo ñaan ñii ñii. waaw waaye nag Thierno Moule moo la fi jaaxal nag. wallaay dëgg la. mbër bu Thierno Moule. mooy jaaxal gars yi. borom bi ndax dama ànd ak yàlla.

Vamos, waaw léegi nag Jean ñu fexe nga génn ci xale bi nga bàyyi jàmm laa paix waaw xale bi nekk si jàmm yow nga nga entré ci néeg bi bismillah galle allah galle ma kër yàlla sa kër la nekk nga sama taalibe bu ma xalaatee ngeen def lu mu bëgg ngeen def bu waxee ngeen def ngeen mu liggéeyal taalibe yi ma yori waaw waaw. on est d'accord. Uh-huh. kon Jean ci xale bu jigéen bi bismillah. ñu waaj sarax bi la ñu waaj a def. mu la soor. mu la soor. mu la soor. mu la soor. mu la soor. mu la soor. mu la soor. mu la jaamu leen soo génnal ci xale bu jigéen bi génnal ci xale bu jigéen bi xam nga barki démb une deux trois rek Mamadou dem tàllal kenn loxo naan nii wax naa ko fii ku profitoo ñaan bi du nangu kooku moom wax na ah génn rek ngeen koj ko def nii tous waaw ah dégg nga nee na waaw waaw leer na <laughs> maanaam sëriñ bu fi ñaan tawul barki Thierno Moule barke alxuraanu karim. Ah! soo. la neexee kaamil yëpp nga jàng ko. wallaay dëgg la. nga jàng kaamil yëpp kaamil xuraan yëpp nga jàng ko. wallaay dëgg la. boo waxul ci barki ceer moom mu leen. jamono jii sa ñaandu na. soo. zaa mu la suuf mu la suuf jangulasiri yanzu jin sarga foira sarga foira sarga foira foira foira foira foira foira foira jangulesu sarga foira jinna jinna jinna jinna kaay dem. nga ne nga ne. jógal jógal ah. yow la kan. man la. yow la maa ngi ñëw wax ak yow bu leer. mu ne man la maa ngi ñëw wax ak yow. jógal waaw waaw su ne bu génnee ci moom tànk bi day métti waaw noonu la. waaw ndànk noonu la de waaw. waaw. c'est parce que waaw waaw foofu la de fi doon yow noo tudd ah. Fati lañ may am nga beneen tur Ramatulaay. Ramatulaay Jëmbe. Ramatulaay Jëmbe foo dëkk. ah. mën nga jógee ñëw. Casamance dégg ngeen. nga jógee ci li ma ko def tuuti. man bugguma loolu quoi ah. da ngaa gëmmentu da ngaa sonn bi nee na daawul nelaw n'est-ce pas. waaw du neen dafa gëmmentu. xam nga kon jinne bi génn na ci moom la ah. waaw da bëgg a nelaw. demal fee nga nelawi dimbali ko mu nelaw ndax daawul nelaw n'est-ce pas jàppale leen ko mu dem nelawi waaw loolu day mel waaw xoolal foofu di jant mu bul dem nag sa tàggoo ma dégg nga bul dem sa tàggoo ma dégg nga non non bul ñibbi ah toog ba ma yeewi la dégg yaa ngi dégg waaw demal nga nelaw dimbali leen ko mu nelaw nga demal fee mu nelaw. dinañ la demal nelaw n'est-ce pas. waaw demal demal demal mu nelaw ko bu leen ko basal. bàyyi leen ko ndànk leen. Aliou xëcc ko mu